ñetteelu xaaj bi ci juróom ñaari xaaj yi booba ibraam amagul woon doom noonu borom bi waxaat ak ibraam ni ñu ko jànge ci njalbeen gi xoolal asamaan te wàññi biddéew yi ndegam mën nga ko mu dellu ne ko noonu la sa askan di tollu ibraam nag gëm na aji sax ji ba tax aji sax ji àtte ne jub na fukki at jàll waaye ibraam ak saara amuñu woon doom noonu saara jël jaamam benn waa misra bu tudd ajara may ko ibraam saara ne ibrahim yàlla mayuma doom kon jëlal ajara ay doomam doon samay doom ibrahim daldi nangu noonu ajara am doom ju góor ñu tuddee ko ismayila waaye xolu wujje daldi dox ci diggante saara ak ajara léegi ma laaj leen juróom ñaar ndax yàlla moo tëraloon ibraam am doom ak ajara déedéet loolu xalaatu saara la woon te ibraam ñàkk xel ba nangu ko yàlla saara la tëraloon mu am doom